wax waxati siñ mbaw mi ci koñ bi jaaxal na ma day raasaato day raasaato dikkati na na day a ngi day raasaato day raasaato mi ci réew mi jaaxal ñam day raasaato day raasaato waaw waaw sëñ day raasaato yi awa bi euh, bëggoon ñu waxtaan ci kër gi ndax kër gi fi mu doon ni war nañoo waxtaan dugg bi génn bi bari na dugg bi génn bi bari na dégg te réew mi tollatul foofu réew mi dafa nekk ci ci ci feebar dëgg la ku ne xam ne ni fi jamono ji dañoo ne ci corona virus. ah recessé bu lañ waaw kay di président moo ko wax. Mhm. voilà léegi nag président ba mu ko waxee. Mhm. waxu leen ko yéen ñii. Mhm. ñun kilifa yi la ko wax. dëgg la kon nag ñun kilifa yi bu ñu ko waxee. dañ ko war a commencé suñu kër yi. dëgg la moom wax njaboot gi ñu toog. looloo tax nag ma bëggoon ah gone yi toog ci kër gi kii moom ay waxam waxuma ko. mais père xoolal président moom muy wax li mu war a def lépp mi ngi koy def. li muy def ci réew mi mi ngi nekk di ko def. Hmm. kon ñun li ñu war a nekk de ñun ñun ñun ñu ñu def. ah yow demuñu fenn ñun. waaye yow Vindoo yow ci loo war a nekk yow ci yow ci lan nga war a nekk. mais mais ba ñun duñ jagg. ah jagg dong la ñuy def. jagg boobu nag la ñu tere ci réew mi réew mi moo la ñu jagg. bëgg ñu def baax na xam nga ne bu yaru woon du ne nongu ca kaw bu yaru woon du ne nongu ca kaw tiim ma may wax. léegi nag géedee ko dugg si kër gi yow moom foo mën di ne ba gee jot xamal ne sa heure jot na nga ñëw tàmbi ci biir kër gi bañati koo génn yow foo nekk ba timis jot na nga dugg si ci kër gi ah tëddoo timis baax na loolu lu may seetlu loolu lu may seetlu. ay maam Diarra yow loolu war nga kaa tontu sa papa. baax na waaw ah, kon baax na waaw ci sa bari. man kay naa ci. tëddul timis na timis jot waaw kay non non na timis jot père xam nga ne ah, waaye gannaaw loolu la la wax ngeen koo def rek man de ma sañoon ngeen def lim leen wax bugguma benn problème seen papa tàng na te lu mu màtt mooy dagg. wax naa la lu leer ah, kon baax na. man de noonu laa nekkee ak moom. yow yow moom lu waay di wax yow la ko war a wax wow nga bët yow yow yow yow xaw ma lu ma la war a wax. bu góor bi moo bàyyam a yam moo maam góor moo bàyyam a day raasaatoo day raasaatoo waaw waaw sëñ day raasaatoo yi. bi ci gi jaamal na ma. tey moom bëggoon naa nu waxtaan ba la ñu àgg euh, bisimilah. xam nga bu ma amee lu ma métti. waaw am kenn ku ma ci yaakaar. waaw sa jëmm yii. wax nga dëgg. ndax mbaw waaw xale yu jigéen yii. waaw nii ñu bëgg a dundee seen dund gii. waaw du wéy. nun paa yi rek. cëm nun paa yi rek. ah ni ñu ñàpp. Ah. ba seen morom ya. jeex na looloon day dakk. waa léegi yow. waaw loolu noonu neewoon naa la man maa ngi ci. waaye da ngaa yàgg nag. da ngaa yàgg maa ngi ci. xale yi man maa ngi leen di engagé ak doole fi fi may wax ak yow ni ma yuu affronté naa leen bu yàgg. xam nga ni man lu ma wax def ko. ah xam nga ni gone yu jigéen ñii. Mhm. du ma leen bàyyi nii ñuy ñuy ñuy kasar kasar yi dégg nga maam di di lool. waaye waaye damaa bëgg maanaam gone yi nan yam ci gone yi. mag ñi mag ñi yam ci mag ñi te koñ bi nag loo ci xamul nag am na ay li may waxatee ngi nii gis nga ko koñ bi su ma nee ay cagaa ngi fi rek nga war maa gëm. caga pire waaw. caga gis nga koñ bi. dafa am ay ay ay caga ju ndaw ju fi ne joo xam. ah international la. salaamaaleykum yéen caga international ngeen. waa léegi bàyyi leen aussi nee na salaamaaleykum maaleykum salaam. booy bu ma waxaat père de. père xooloo booy bu ma waxaat père. waay père. ah ah. waaw waay waay waay wuyu ko waay. bu ma ci ba max yooyu. waxal ak moom yow la nit père waxal ak moom. waaw léegi man la wax père bàyyi ma ak moom rek. waxal ak moom waaw léegi waxal sa yitte waxal sa waxal sa yitte. père sànq ba may romb damaa dégg ngeen wax benn moo léegi ba ma tuuse léegi moo tax ma. Eh. benn lan benn moo bu ma tuuse ah. léegi mool yaa nga nee muul yaa nga ne benn baat bi nga waxoon laa bëgg nga waxaat ko léegi ma dégg man li ma wax fii yow man nga koo xam yow xoolal bi dee li ngay woote mu ngi yow boo ko waxaatee léegi ma def muus yàgg du yàgg eh. eh, yow booy man ngay def man yow léegi may ma waaw yow yow bu ñu wax caga yow taxoo man mii jigéen maa tax ah yaay caga bi ñëwal ñëwal yaay caga bi yow waxal yow caga bi yow waxal yow caga bi yow yéen yéen a ñu gën a caga ay waay di waaw ah? waaye yow yow mii yow. ah yow tey laa lay weer yow. man man yow boo may weer yow gan lii nga may wéet. lii gi nga méritoo laa lay wéet. muy gan yow yow yaay caga international <laughs> yow caga koñ bi yow mii la. man waaw. waaw yaw Ndiaye yow jooju mi woo yow. ah jë jë ñii kay wax la ñoom rek. boo amee sutura moo koy may boppam waaw. te caga mooy xam moromu cagaam. ah na yéen a eh, gis nga booy. booy waa léegi xam ngeen lan la. booy mi ngi ëppal eh, xam ngeen lan la Ndiaye. ay paa yi doomi raam ngeen. eh caga bay bëgg. booy da saaga de. kii dafa sa Ndiaye kii damay def ci moom waay yow. ñëwal. bis li nga wax boo ci delluwaatee léegi ma def la muus baa ma def la jigéen léegi ngëj. doo wax nar a bon. doo wax loolu noppi jeex na koñ ba mu di yar koñ ba mu di yar lan dem koñ ba mu di yar. xam naa daal lu ci man di xamal leen de waaw li ngeen wax bu ko waxaatee léegi ma def leen ay góor léegi fii man kay man kay wuy ma booy soof doo ko dee doo ko de déggaat de baatu caga de moom doo ko déggaat waaye moom nga de moom yéen ay international ngeen yéen ma ne du déggaat baatu caga waaye moom la laa wax booy bi iri na ko de iri ma fàqat na ko de. Ndiaye booy bi tal na de. tey mu toj lu borom de. tal na de man engagé ma loolu. waaw yow li ñu la fi wax lii lépp. ah yow yow xam nga xam nga lan mooy wax. tey moom da ngaa gis gan doxal rek. booy bi dafa dem ba rocc sama film bi. waaye na la yow góor jigéen. waaye waaye damaa dem ba lu mu wax bëgg naa. ah damay ay. kii kii kii bu ma rentré ma de. waaye avance nga dem ba ma rey ma jël na gardien moom indi ci këram siñ mbaw jël na gardien moom indi ci këram xolal tanaan xale yi na ñëpp dugg ci biir kër gi tëj xale yi tëj ci bi tëj bëttu kër gi tëj xolal te ñeeg saal yi te ñeeg saal yi xolal di raasaatu sëñ Mbaw moom nee naa xoolal am na ñaari doom bu góor ak bu jigéen kenn ki maam jaara moom la ko duppee waaye soxna jaara wuyowul turam maam góor mooy